fàttali ndax fàttali dinay jariñ ñi nga xam ne dañoo dañoo gëm euh, waxtaan wi nag lépp rek day jëm ci bisu màgg yu tedd yi ñu nekk muy weeru màgg wi ñu nekk nga xam ne jamono yi yëpp ñu nekk ci muy weeru ngëneel di weeru xéewal di weeru tawféex muy shahru ramadan al ñu nekk ci ba toll fii ci mujj gi di ko war a di ko muy bëgg a jeex muy bis yu màgg yoo xam ne jullit bi moom bu ñëwee war na cee def kem kàttanam góorgóorlu ci ba euh, man cee jëlee ay ay ay yokk yoo xam ne dana ko jariñ euh, ci digganteem ak boromam muy weeru màgg woo xam ne euh, Cheikhul Xalim la anhu daan na ko dalal bu ñëwee di tudd njariñ yu bari yi nga xam ne moo ci nekk bay wax sax ne mboolem ñi nga xam ne rek ñi ngi woor suñ borom dana leen dimbale dana leen ubbil dana leen tëjal buntu buntu buntu mbugal ubbi leen buntu xéewal ndax xam ngeen ne wax na ne euh, am na bunt bu ñuy wax rayaan boo xam ne ca buntu aljana la bokk ñooy woor rek ñoo fay jaar ba sëriñ bi sax di soññee di wax ñi nga xam ne ñooy woor ne leen kat sa taalamuuna anna rabbakum karim wa anna indahu ujuran la tarim da ngeen xam na ngeen yéen ñiy woor kat euh, baax ngeen bay woor waaye bu ëllëgee bu leen seen borom fayee di ngeen xam ne moo leen gën a baax moo leen gën a tabe moo leen gën a mën a maye Euh, loolu kon di xewal gu rëy goo xam ne képp kuy war rek war naa rafet njort ci dugg ci xewal googu muy li nga xam ne rek wax na la kum la dal futuuri wa liqaay yaa xaw mi furxataani bi tixaay yéen ñi nga xam ne kat yéenay woor na ngeen xam ne am ngeen ñaari mbég yu leen xaar te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax ne kii woor am na ñaari mbég yu koy xaar mbég mi muy am waxtu wu muy dog ak mbég mi muy am bu ëllëgee bu dajak boromam te xam ngeen lu ne suñu borom da ciy fay waaye ñëwee ba ci koor dane as sawmu lii wa ana ajzi bi weeru koor moom maa koor moom maa ko moom te bu may fay damay sotti rek nu ma neexee kon ñu ciy ndokkeel jullit ñëpp di ñaan suñu borom dimbali ñu ba mboolem lu ñu ci def ci lu baax mu ful ko te def ko ay ngëneel def koy xewal mboolem lu ci jullit def ci ay rëcc rëcc mu jéggal ko ko faral koy bàkkaaram te loolu suñu borom mën na ko euh, yàlla nañu ko defal ñun ñëpp kon euh, tomb bi ñu doon njëkk wax ci loolu loolu rek ndax waxtu nodd wi dafa jege muy ndokkeel jullit ñëpp ci weer wi ñaan mboolem lu ñu ci def ci lu baax suñ borom nangul ñu ko xëy na bu ñu noddee ba noppi nag ñu wax ci lu jëm ci julli gi moom euh, incha allahu taala. Euh, kon su ko defee ci tënk rek ndax waxtu wi jege na ginnaaw bu ñu xamee ne weeru koor yi ñu nekkoon weeru màgg la weeru tedd la weer la woo xam ne suñ boroom bu ñëwee xéewal yi da koy sotti julli ñi saa su ne rawatina nag fukki fan yu mujj yi nga xam ne moom guddi gi gën ci guddi yi ci la ko def muy laylatul xadr di guddi gu màgg goo xam ne da ko baaxee xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir ñoom niñ doonee ñoo xam ne seen i fan day gàtt mu defal leen ko ngir ñu mën ciy dabbu euh, li nga xam ne xeetu njëkk yi dañ daan gudd fan mu defal leen genn guddi ci seen dund ci weer at mu ne guddi goo xam ne ku ci jaamu yàlla la nga cee jëlee nee na xayru min alfi shahr maanaam moo gën juróom-ñett fukki at ak lu topp nga xam ne kon bu ko nit ki fekkee fukki yoon rek day mën ne guddi gu ci nekk bu ci jaamoo yàlla kon danañ ko ko fulal mu ëpp juróom-ñetti at juróom-ñetti te juróom-ñetti téeméeri at ak ñeent fukk lu mu ci dolli lu ëpp junni da koy am nga xam ne kon xéewal la goo xam ne yéen sallam suñ borom da ko baaxee loolu moo ko xeetam muy laytu xadar muy baax nag jullit bi bu weer bu wooree weeru koor ba muy jeex mu xam yi ko ci war mu def ko waaye xool bind yu mu ci mën a jëlee weeru koor nag ginnaaw mi ngi jeex nii nga xam ne tey jii mooy fanweeri fan yi suba incha allah ci la war a jëm ci julli gi li nga xam ne ab jullit moom la war a njëkk a bàyyi xel mooy mu xam ne euh, maanaam Seydina Abubakar li mu waxoon di fi mu sallam jógee ne képp ku daan jaamu jaamu Seydina Muhammad jóge na fi moom tey waaye képp koo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala nga daan jaamu nag xamal ne mi ngi fi tuddoo du fi jóg li mu war a njëkk bàyyi xel mooy ne képp ku daa jëf lu baax ngir rek weeru koor kese weeru koor moom tey jii bu soob yàlla bu jant bi soo day jeex waaye nag képp koo xam ne da ko doon jëf te yàlla rek tax suñu borom moom mi ngi fi du fi jóg mukk te du jeex mukk loolu mooy li ab jullit njëkk a teg ci kanamam mu fexe kon ba xeet yu baax yi nga xam ne da koo yokkoon bi weeru koor ñëwee na fexe ba bu ko munta wéyee nam ko daa wéyee it na fexe ba am lu ci des moom maanaam na fexe lam daan def ci baraxlu bu koor gi ñëwee moom bu mu del na na ca yokk dara na ca yokk dara bu munta sax ci rythme bi mu nekkee woon ci weeru koor it na fexe ba lam daan def ci ci baraxlu moom mu yokk ci dara mu xam ne lii kat ci weeru koor yi la ko jëlee mu dellu ci li suñu borom waxoon julli ñu leen la'allakum tattaxun am loo xam ne it tey jii julli ji war nañ cee bàyyi xel te mooy li ñuy wax muurum koor muurum koor di loo xam ne yonent bi sallallahu moo ko waral ci bépp jullit bépp jullit boo xam ne rek bisu julli gi am na lu ko doy sëkk ci lu mu dunde boo amee lu ci des rek moom war naa xool nu mu ko génnee mu doon loo xam ne it dafa am solo lool ndax yonent sallallahu alayhi wax na ne euh, tu'matun lil masaakin tuhratun lil lil lil lil euh, nu mu ko waxee sax maanaam ñi nga xam ne daal ñoo koy joxe moom day day laabal seen alal ñi nga xam ne it ñoom lañ koy jox ñoom da leen luñ day da leen da leen luñ ab dund bu ñu leen di jox la maanaam kon fi muy jóge tuhratun lis saaimin wa tu'matun lil masaakin ñi nga xam ne dañoo waroon ba di ko joxe day laabal kool gi ci rëcc rëcc yi ci defoon ba lépp jàkk ñi nga xam ne ñoom lañ koy joxe dana leen dimbali ci bisu julli gi muurum koor di asaka muurum koor loo xam ne kon dañ ko war a génne ci bisu julli gi dafa am it waxtu wuñ koy génne am lim buñ ci war a génne am luñ ko war a génne moom ñi ngi ko war a génne balaa bisu julli gi bala ngaa julli ji bisu korite gi maanaam yéen sansam day wax ne képp ko xam ne génne nga ko lu jiitu julli gi muurum koor nga génne képp ku ko génne ginnaaw julli gi nanga nga xam ne ab sarax rek nga génne kon ñëpp nañ fexe ba ñu génne ko gën ngaa yeex suba bala ñoo julli ji ayet ci suba gi moom nag ci ngirum imam Malik muy ngir mi nga xam ne ci la ne Cheikh Xadim digaluñu ko cosaan li mooy dañ koy joxe ci ab dund li ëpp lu ñuy dundee ci ci réew mi te mooy fi mu ne boroom xam-xam ko nattee wax nañ ne képp ku génne ñaari kilo ak genn waa libar ci kenn nit ku ne loolu nga koy génneel ñaari kilo ak genn waa libar ci ceeb ñaari kilo ak genn waa libar kum neex nag nga génne ko xaalis lool it ñi ngi ko natt ci 900 francs nit ku ne nga génneel ko lu toll noonu comme nit ku ne mën nga ko nattal ñaari kilo ak genn waa libar wala nga nattal ko wala nga génneel ko xaalis 900 francs hmm, dañ koy jox ñi nga xam ne dañoo ñàkk ngir bisu julli gi ñu am lu leen doy ba feet googu nga xam ne mooy bisu julli ñu mën cee bokk maye nañ ñu génne ko bu desee benn fan ñaari fan maanaam fi mu ne nii comme neex nga génne waaye li ci ëpp solo daal mooy ñu xam mooy gën ngaa yeex moom bala ngaa julli jaan it war naa génn bala ngaa julli jaan war naa génn yow yaa koy yow ci sa bopp ak képp koo xam ne dundal ko yow la war muy sa njaboot say doom sa soxna say waajur bu dee yaa leen di génneel mën nga leen a génneel su la neexee ak nag ñi nga xam ne yaa leen ñooñu su la neexee nga génneel leen waaye ñi xam ne moom seenu dund daal yow la war ñooñu moom génneel leen yow la war te it lu munta ñàkk ci ci ci koor gi la kon ñu xamee ko noonu ne ñaari kilo ak genn wàll libar lay doon kum neexit nag mën na ko génn ci xaalis ci 900 francs mu doon loo xam ne it bisu julli gi am na ay ay teggin yoo xam ne jullit ñi war nañ cee bàyyi xel mooy julli gi ñuy julli ji bisu julli gi loolu ci teggin yi ñu war a bàyyi xel ci bisu korite ci la bokk jullit bu ne rek bu xëyee mu waaj toiletu ndax dañoo bëgg bis boobu di bisub feet la ci ci biir lislaam ñu bëgg mu mu fës ci jullit ñi dañuy wax ne lubsul jadid wala lam yakun abyada maanaam sol lu bees donte weexut bu dee àjjuma ñu ne lu sol ab yat wala wala wala mu yakun jadidan bisu àjjuma moom nit ki na sol lu weex bu ko mënee donte du lu bees bu dee bisub iid nag safaan bi na sol lu bees donte weexut kon julli ji gi toiletu gi loolu ci ngir fësal mbég loolu ci teggi ni korite ci la bokk euh, boo julli jee tamit boo demee bisu julli gi bëgg nañu balaa ngaa julli ji nga lekk dara ngir wane ne koor gi dagg na bisub korité boo xëyee bala ngaa dem julli ci nga lekk dara yéen sansam daan na ko def daan na jël tàndarma wax nañu da daan tóol ñett wala juróom-ñaar wala yooyu waaye li ci am solo daal mooy bala ngaa julli ci nga mos dal ba nga xam ne moom koor gi wane nga ne dagg nga ko ci lu fes kon loolu ci teggi ni bis bi ci la bokk euh, bu ñu demee ci jullikaay bi ñu xam ne amul yenn yenn rakk yu ñu fay julli amul ñëw naan damay damay julli ñaar rakk wala dama jullee ba noppi damay julli ñaar rakk da ngay ñëw rek toog bu imaam ñëwee ñu taxawal julli mu jeex julli googu comme ni ngeen ko xamee amul liqaam amul nodd amul ay kàbbaar yi ñuy def bu dee bisu korite bu dee bisu tabaski moom xam ngeen ay fan lañ koy def waaye bisu korite dañ koy def ba ba ba ba ñuy ba ba ñuy bëgg julli suñu xasee julli nag foofu la yam maanaam kon bu weer wi feeñee tey mën nañu commencé kàbbaar yi comme neex ba ba suba ci bisu bisu it comme ni ngeen ko xamee it bëri na xeeti xeeti kàbbaar yi siyaar yi bëri na allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah allahu akbar allahu akbar walillahi alhamd comme neex nga jàpp ci boobu wala beneen bu mu ci man rek bisub julli gi ci la bokk waaye ñu di ko def kon baba ñi julli kuy dem di julli jiit bokk na ci sunna bëgg nañu yoon wi mu jaar buy dem bu ñibbi mu jaar weneen yoon mu xaalafatu tariq loolu am na ñu ne dañ koy def ngir fësal dooley lislaam am ñu ne dañ koy def it ngir fësal màgg suñu borom gi ak kenn jullit ñi am ñu ne sax mbedd yi ngay jaar yëpp boo liggéey dañ lay seetal ci suñu borom kon bëgg nañ ci teggi nit bokk na ci koo xam oto nga yor moo xam sa yoon wi nga jaaroon nga teggi booy jëw jaar ci weneen yoon boo ko mënee lool yi ci tegg ni la bokk sang njaboot it bis boobu loo man ci bégal leen mooy bernde yi ñuy def ak yooyu euh, loolu ci teggi ni bis bi ci la bokk ndokkelante bi jullit ñi di ndokkelante balonte ak seen biir loolu ci teggi ni bis bi ci la bokk kon yooyu yëpp ay bis ay teggin la yoo xam ne euh, teggi ni korite la jullit bu ne war na cee war na cee bàyyi xel ak nag bind yu man rek mu jël ko ci biir weeru koor wi ñu génn ndax weeru koor dafa ñëwoon rek suñu borom li mu waxoon ne la'allakum tattaquun mooy dafa dama leen ko digal kat ni ma ko digale woon ñi leen jiitu ngeen de ngeen jëlee ci ak ragal yàlla kon bind yooyu bokk na ci ci ab jullit mën a njëkk a jëlee mooy muñ mu xam ne muñ dafa bokk ci jaamu yàlla yi gën a màgg ndax ba ci gi koor yëpp yaa ngi doon xiif di mar waaye sañoo lekk sañoo naan lépp nga di ko def rek di ko muñ ngir li la ko suñu borom digal kon loolu muñ ci bind yi ñuy jëlee ci weeru koor ci la bokk waaye bokk na ci bind yi ñu jëlee ne ab jullit saa bu ndigalul suñu borom ñëwee da caa war a tënku te bàyyi bànnee xam fële ndax xam ngeen xiif ak mar metti na lool waaye jullit ñëpp jiiru weeru koor yëpp kenn lekkut kenn naanut te lu tax ñu di ko def mooy jébbal seen bopp tënku ci jëfee ci jëfee ndigalul suñu borom ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moo indi woon ndigalul jóge suñu borom muy digle ne nañu woor bu weeru koor ñëwee ni ci nit daa téye aw làmmiñam téye ay cëram def ab safaan di moytu jëw di moytu rambaaj moytu jëpp wax joo ne ay caaxaan la moytu bànneex yi nga xam ne daganut loolu jullit bi war na cee góorgóorlu ba bu koor gi weer feeñ tey jii ci timis rek mun a jeex na ba déwén ak jàmm déedéet na xam ne rek bu dee yàlla la doon jaamu suñ borom mi ngi fi te du fi jóg mukk bu dee weeru koor taxoon muy def nag weeru koor moom bu tey jii ci timisee dana jeex te jullit ñi nag suñ borom subhanahu wa moom la ñuy kon bokk na ci bind yi ñu mën a jëlee ci weeru koor yi ñu fexe ba yu baax yooyu ñu doon def bu koor gi jeex rek mu jeex buñ mënta wéy ci ri bi ñu nekkee woon it nañ fexe ba euh, moom mu ba dara ndax loolu la ñu bëggoon te jëf yu baax yi dañuy xëccante dañuy wax ne makaarimul axlaaq ji koy rafet yi soo ko bëggee jëlul ngay bëgg maanaam jëlu ngay jiima a jéem a melo melowondoo yëpp ci benn jamono fexe ba jàpp fexeel ba jàpp ci benn rek benn bu ci nekk day xëcc morom ci maanaam ki jàpp maandu maandu mooy indi tabe mooy indi yiw mooy indi sutura mooy indi baax mooy indi yéen ñëpp jàmm ci misaal kon loolu it ci bind yi ñu ci war a jëlee euh, ci la bokk waaye it bokk na ci bind yi ñu ci war a jëlee mooy fonk saraxe ak dimbali ñi nga xam ne dañoo new doole ndax xam ngeen ne bëccëgu koor gi bu tàngee nit ñi danañ xiif danañ mar sonn lool jullit bi kon loolu bokk na ci bind yi ci war a jële mooy mu jàngat ci nakat xiif boobu am na ñoo xam ne ñoom dañu ko dëkke ñi nga xam ne dañoo néew doole ñoom dañoo dañoo dañoo dëkkee xiif boobu kon ki nga xam ne dafa womalit loolu dina tax ba bu koor yàllee léeg-léeg muy gestu ñi nga xam ne nag ay way ji ay way néew doole lañ te te te nekk ak ñoom lu mu mën ci dimbali leen mu di ko def ngir xam ne xiif boobu li muy métti métti ci bëccëgu ñoom dañ koo dañ koo dëkkee dañ koo dëkkee kon loolu it ci bind yi nga xam ne war nañ koo jëlee ci weeru koor euh, ci la bokk waaye nag yooyu yëpp li ci am solo rek mooy jullit bi moom mu xam ne lislaam jikkoo rek la doon defar si xam ngeen mbooleem xeeti jaamu yàlla yi yi ñu suñu borom digal yëpp ci lislaam yu mag yi bu ci nekk bu mu ko tuggee bu ko tuddee day wax ne euh, nañ day wax ne la cay juddoo rek la cay juddoo rek mooy jikko yu baax kon weeru koor bi nga xam ne suñu borom dafa wax ne la'allakum tattaqun kon ñu xam ne ragal yàlla rek lañ war a jëlee xëy na waxtu wi jege na moo tax dañ doon joxe ay bind rek fàttali ngir ñu xam weeru koor liñ ci mën a jëlee ci ay bind ak li ñu war ci ay mbuurum koor yu demee ni ki noonu ñuy jégalu ñëpp di ñaan suñu borom jégal ñu suñu bàkkaar nangul ñu mbooleem lu ñu def ci koor gi ci ay jaamu yàlla te sotti ci réew mi jàmm wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.